moom mii la tukkee ba ñu di ko jot muy waxtaan wu rafet di tamit seede bu rafet ak témoignage bu rafet bu wane ni lii ñu fi def bokk na ci ñiñ ko fi defal ndaxte sëriñ bi day faral di wax ni lépp loo gis muy lu baax boo ko rombee boo ko gisee mu neex la yaa ngi ca biir jëf ja kenn ëppaleetu la ci safaan ba it noonu lay mel waaye moom bi mu fi laataa ñëw rafetlu na ko te booba kat gis rekk ñu filme dugal ci vidéo yi mu xool mu wax ca wax joo xam ne daanaka mënula gën a rafet wax ji mu fi wax léegi waaye ni ma ko waxee woon léegi rek ñun ñun ñun ñiti diine diine rek la am te it diine lu jara am la kon ñun amuñu lu dul moom damay faral di wax ni jullit yi nañu xoolaat bu baax a baax a baax seen bopp mm-hmm. ndax ñun duñu ay noon ay complice sax lañu war a doon ñun jëlale naa li yàlla wax ni dañoo war a tënku ci génn buum waaye dañoo war a doon saxi complice ndaxte li nga xam ni moo ñu tënk muy diine di diine lislaam li ñu am amuñu lu ko gën a rëy mooy diine moo tax sëriñ bi ni ma ko waxee woon sànq rek mosula am ñaari yitte mosula am ñetti yitte benn yitte rek la sëñ bi masa am mooy diine <laughs> te bind na ko wax na ko nee na diine rek la am nee na leneen lu dul diine amu ci bëgg amu ci yàq ni ko ni ko doomam ju baax ja waxe woon ni ko lu dul diine lislaam nee na lu dul lu dul diine lislaam amu ci defar amu ci yàq waaw <laughs> ah, waaw ah, amu cig defar amu ci yàq kon bu fekkee ni ñun dañuy ay jullit ah, sans borom boole nu loolu muy suñu koom nekk nekk nekk suñu patrimoine eh, eh, jëlale naa sax xaritoo waaye dañoo war a dooni complexe ndaxte leneen lu dul ñun rek noonu la ci ñun <laughs> leneen dul ñun noonu ci ñun ñoonu lislaam xàmmewuñu tiijaan baag xaadir baak laayeen baak zalzaliyo baak xamewuñu ko dañuy wax jullit la rek noonu noonu suñu noonu lañu kon koñ comme ñun ku ñu seen doo ñu teg beneen étiquette lu dul étiquette jullit ñun kat ñoo war a doon complice <laughs> ñoo war a doon complice waaye waruñuy sëñ bi Mbàkke bisimilah waruñu waruñuy waruñu dooni noonu yow nag ñoo ngi lay ñoo ngi lay ñoo ngi suivre bu baax a baax a baax li taxit nag ñu lay suivre mooy yow waxoo ci lenn ci diine rek ngay wax te diine jooju moom sëriñ bi moom la mu waxoon daanaka ñëpp dégg nañ ko lil Mustafa nawaytuma yu jaddidu sunnatu xarawa indi ahmadu kooku kon kuy wax ci diine moom ngay dimbali rek <laughs> te ñun sëñ bi ku ko dimbali jàpp nañ ñun ngay dimbali waaw dafa am ñoo xam ne nag boo waxee ci diine loo xam ne lii lu jub la am nga ñëpp am na ñoo xam ne lu ñu def diine bu doon xosi sax na jàpp ni moom lañu xosi te am nga ci wàll moo tax nag warute leen a noppi waaw loo leen gis loo xam ne diine dàq na ko bëgg ko mm. na ngeen taxaw xar ci seen tànk tubéy te bu leen xool kenn ndaxte loo gis mu wàcc ci àddina bi mm. ak lu mu bari bari bari bari bari bari doole ci nett lii rek lay mujj buuri àddina bii nem réew leen ëppoon doole fuuf Ponce Pilate moo leen ëppoon doole fuuf dooley dooley fer ci firaw na yi seen doole ñi gisuñu ko ndaxte booba loi amul droit amul droit de l'homme amul nit koo gis corvéable et traitable mooy tax li ñu def sëñ bi xoolal bi ñu koy yóbbu xam nga li ñu def loolu simulacre de jugement la woo sab labbe woo say commandant woo say nangam nangam amut avocat nga taxaw ni nit yaa ma tooñ dinaa la génne réew mi ndax bari nga doole xam nga ni kooku corvéable et traitable la ah <laughs> corvéable et traitable la te loolu amatul loolu amatul makki Sall mii mooy borom réew mi ñu fal ko lu mu am am am doole sañu la tëj kenn te jugé wuñ ko te sëñ bi kenn mësu ko jugé dañu def rek simulacre de jugement tëj ko kon bon loo leen gis mu ne ci diine ji te nekk lu xajam rek nañ ko dénoncé parce que ñun moom rek la am waaw maa ngi lay gërëm bu baax li la sant di nuyu sa sama sama sëriñ bi doog a egsi jóge ca Cheikh Mouhamadul Muntaxa léegi la ma sëñ bi léegi la ma sëñ bi woo booba ma nga ca keppaaram xam naa dafaa jóge rek dugg ci autoroute bi ñëw waaye li ma sëñ bi wax ci moom fokk ma gaaral ko sax nit ñi moo ëpp solo biig la ma ko jëkk a wax biig la ma woo ni ma dama faa bëgg yebal Cheikh Baara mu ñëw fi wëral ma kilifa diine yi nga xam ne ñoom laa séqal lislaam bi ci Sénégal dem yëgal ma leen xew-xew bi ba pare joxal ma leen seen invitation boo xam ne man maa leen invité ngir ñu ñëw ci ubbite jumaa ji li ma nag moom xam na ko bu baax a baax a baax a baax moo ko daan doxal Seex Sidil Maxtaar di ko demal ci gàmmo yi ak xew-xewi diine yépp di fa yóbbuy teraanga te moom kat day sama doom joo xam ne jii ba ma ko doomoo mu def ma kilifa booba lii lépp dara xewagul waaw ni ma nag mi ngi ñëw faf tey ci suba mu woowaat ma waxaat ma li ma waxoon ci moom mu ñëw bu toogee nii kon dinaa leen ko séeréel ngeen dégg ko yéen ñëpp rek ah, tey sant rek nag di leen sant bu baax a baax a baax lii moom du yëfi kenn du yëfi ñaar yëfi kenn rek la nag muy yàlla yëfi kenn rek la muy lislaam kon ñoo ko bokk bari bés baa ngoog sa bés la ku war a yëg na yëg